asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ngeen dal ak jàmm ci xibaar yi digg bëccëg bi bàyyee ko QTV ak Q radio bëccëgub tey bi ngeen di si ànd ak Xadijatu ko la ñu seeti bopp xibaar yi. drogue bi war a toll kasi ñaar téeméer fanweer ak juróom-ñetti kilifa yi lakk ci àllarba bi ñu boole ko nag si ndaje bu ñu def pour màggal bés bu ñu jagleel mbirub drogue bi ak yàqutu yu moo def ci àddina si. banqaas bi seetu wàllub àq ak yelleefi doomi aadama ak lu koy dooleel ci dëkk yu nekk si Afrique ci talaata bi ñoom ñoo dajaloo pour waxtaanee lu aju ci àq ak yelleefi doomi aadama ak ñaawteef yi dee daanu ci kaw néew di doole jigéen ñi ak ndaw ñi. commissionnaire général ci banxaas buy saytu wàllu fayub lempo bi muy wuyoo si Yankuba Dabo ci waxtaan bu mu am ak QTV xamal nañu ne naka koppar goo xam ne nguurub Gambie bi sas na leen ko pour ñu génnee ko ci atum 2021 bi bu soobee yàlla naka gëm na ne jëwriñam bi nañ ko tëral. mbokk yi li doonoon boppu xibaar yi ñu taxil bu ñu dellu see yaatal xibaar yi fi jot a am ci bëccëgub tey bi ñetti façon yi xeetu drogue la kilifa yi lakk ci àllarba bi bés bi nag dañ ko boole ci màggal bu ñu fas yéene def pour màggal nag bés bu banxaasu bitim réew yi taxawal jëmale ko nag ci xeexum xeetub drogue bi mu tombee nag juróom-benn fan ci weerub juun at mu nekk waaye nag ñoom ñu ko màggal ci weerub décembre bi drogue yi ñu yàq nag ñu ne lu toll si ñeenti tonnes ci yàmba lu lañ fa yàq lu war a toll nag si ñaar téeméer fanweer ak juróom-ñetti kilomètre ci drogue bu ñu naan xaasis boobu tamit yàq nañ ko fa lu toll si fukk ak juróom-ñaari ci drogue bu ñu naan héroïne yàq nañ ko fa ak tamit lu toll si juróom fukk ak ñaari kilogramme ci xeetu drogue bu ñu naan cocaïne yàq nañ ko. sa ndaje ba nag kilifa yu nekk di liggéey ci bànqaasu kaaraange bi teewul teew nañ fa kilifa yu nekk di liggéey ci bànqaasu nguur gi ñu ngi fa teewlu ak i tamit ñenn ñoo xam ne ñoo nekk di liggéey ci bànqaas yu saytu wàllu àq ak yelleefi doomi aadama ak ñi nga xam ne naka ñoo bàyyeekoo ci buntu taseekaay xibaar yi ginnaaw sax bés boo xam ne nag la ñu taxawal pour màggal lu aju si xeexub xeetu drogue bi passé na banqaas bi seet wàllu drogue bi ci biir réewu Gambie bi ñoom jàpp nañ ne mujjanteelu weer bi muy ci weerub décembre bi lañ dee faral di yàq naka drogue yoo xam ne loolu lañ jot a jàpp ci at mi. sa ndaje ba ñu naan Bakary Gassama moom mu doon directeur général ci banxaas bi seetu wàllu xeexu drogue bi ci biir réewu Gambie bi moom mu ne atub bi nag seen ndaje gi wala waxtaan bi nag dañ ko tëral ci satt yoo xam ne nag yooyu la ñoo tëral pour gis ne aar nañ doomi aadama yi ci mbiru xeetu drogue bi mu ne nag ndax ëmpa la wuñ ne drogue nag dafa yàq ne doomi aadama Abdoulaye Tibi Jara moom mu doon ne permanent secretary si jëwrin bi seet wàllub kaaraange bi ginnaaw doon gaaral kàddoom si làmmeñu board members yoo xam ne naka ñoo nekk di liggéey ci banxas bi seetu wàllub xeexub drog bi ci biir réewu Gambie bi moom wax na ne si jamono ji naka ñu ngi takk seeni tànk tibe yi dajaloo di waxtaan pour gis ne naka tëral nañ sart yu dëggal yoo xam ne naka dañ koy jëfandikoo ci dëkk waaye ngir gis ne naka aar nañ ndaw ñi lu aju naka ci wàllub drog ba nga xam ne naka duñ ci mën a dugal seen loxo Yankuba Sonko moom mu doon ministre bu ñu dénk wàllu kaaraange bi mu ne mu ngi ñaax askan wi pour ñu bàyyi xel xibaar yoo xam ne naka nekkul dëgg mu ne naka dañu war a booloo gis ne naka xeex nañu mbiru drogue bi ci biir réewu Gambie bi ñu jàppalante. banqaas bi seetu wàllub àq ak yelle fi doomi aadama yi ak lu ko dooleel ci dëkk yu nekk si Afrique ñoom ñoo dajaloo pour waxtaan ak tamit wéccu wante xalaat ci liggéey gu ñu nekk di def ci matuwaay googu fas yéene nañoo tëral ay sat yoo xam ne nag dafay aar yelleefu néew di doole jigéen ñi ak ndaw ñi. dëkkub Gambia bi ëmpale buñ ne nag comme yeneen dëkk yu nekke ci biir Afrique doon nañ dëkk yoo xam ne nag tubaab yaa fi nekkoon te ñoom ñoo ko jiite woon te nag British yi mi ñoo xam ne nag ñoo jiite woon réew mi di tubaab yoole am na ci nag yenn bug yoo xam ne nag ñu ngi ko bindoon def ci nag ay luwaa yoo xam ne ñu ngi ko doon liggéeyee si jamono yi ñu jiite woon réew mi te naka yenn ci seen luwaa yu ñu bindoon ba tey naka mu ngi bokk ci bugub luwaawoo réew mi luwaa yooyu naka benn bu ci mel ni lu aju naka ci mbirum ŋàññi wante jëmale ko naka ci néew di doole nit ñi nga xam ne naka ñooy jigéen ñi ak ndaw ñi tamit nag ŋàññewante goo xam ne nag mu ngi am ci diggante mbooloo bu ñu bàyyee xel nag ci biir réewu Gambie bi lu waa goo xam ne nag ñu ngi ko tëral jëmale ko si ni ñoo xam ne nag ñoo dee def ñaawteef yi buñ leen jàppee ñaari at nag la ñu war a tëdd kaso wala ñu fay xaalis wala sax ñu fay xaalis ba pare nag tëdd kaso buñ la gisee tamit ngay aydul maanaam ngay warantu te ñu gis ne naka sa mbir óorut yow war nañ laa jàpp ñu la bàyyee xel tamit gis ne naka yaa ngi xalaat àqalikoog sa sago di def yenn mbir yoo xam ne naka dafa jéggee lu waayoo dañ la war a teg loxo tamit naka boo fekkee ne yaa ngi ŋàññ wala sax di yëkkati kàddu gu ñaaw teg ko naka ci kaw ni koo xam ne naka ab taq der la yow nañ la teg loxo tamit naka booy def mbir yoo xam ne naka dafa àndale lu aju naka ci wàllu bor maanaam nga leb bor naka fayoo ko yow nañ la war a jàpp tamit naka bu fekkee ne yaa ngi yëkkati kàddu gu ñaaw jëmale ko ci koo xam ne naka mu ngi liggéey ci wàllu wér yaram bi yow dinañ la teg loxo lii yëpp naka doonoon na luwaa yoo xam ne naka British yaa ko tëraloon si jamono joo xam ne naka ñu ngi jiite woon réew mi naka mu ngi ku ci luwaawu réew mi Gaye Sow moom mu doon executive director ci banxaas bi sit wàllub àq ak yelleefi doomi aadama di ko dooleel ci dëkk yi nekk ci biir Afrique bi ginnaaw doon gaaral kàddo mu ne si jamono ji naka luwaa yooyu nga xam ne naka yuy ndaw ndaw yi la dañ ko war a gestuwaat naka bu ñëwee ci bugub luwaa bu réew mi mu ne tamit dañu war a yee askan wi xamal leen ne naka lii mbir la boo xam ne mu ngi ko am mu ne naka lu ëpp si ñaar fukki at ak juróom guur gaa koy doxalee te naka lu aju ci wàllub njub ak àq ak yelleefi doomi aadama lu aju tamit ci wàllub kaarange bi ak doxalinub askan wi doon nañ mbir boo xam ne naka dañ ko ko war a bàyyi xel te naka dañ leen war a fàttalil luwaay yi nga xam ne naka mu ngi ci bugub luwaa boobu réew mi ñu fexe jéem nañ koo génnee pour gis naka mbirum ŋàññi wante génnee nañ ko ci biir réew mi mu ko ne di wax ne tamit ministre bi seetu wàllub njub gi ñoom naka si jamono ji offense yooyu mi maanaam luwaa yooyu naka dañ ko gisee ne mbir la goo xam ne naka luwaa daf ko aju te naka dañ koy war a jëfandikoo Souaibou Touré moom mu doon ab député doon it vice chair si banxaas goo xam ne nag néegu député baa ko taxawal pour ñu saytu lu aju ci wàllu àq ak yelleef doomi aadama moom nag wax nañu matuwaay goo xam ne nag député yaa ngi ko jël ñoom ñoo xam ne nag ñooy tëral luwaayu réew mi ñu ngi ko fas yéene jël nag pour gis ne bàyyi xel nañ nag fosam luwaa googu mu continuer di wax ne tamit lépp loo xam ne rek nañ ko def nañ ko tëral jaarale sarta goo xam ne nag banxaas bu ñu naan Africa Charter ñu ngi ko liggéeyee pour gis ne nañ xel xam ne nag mu ngi nekk ci biir réew mi ay ñeenti téeméeri at ci ginnaaw bu ñu gestoo ci dëkk yu nekk ci Afrique dëkk yu ci mel ni Angola Cap-Vert Lesotho ak Rwanda wax nañ ne nag ñoom ñu ngi dund comme réewu Gambie lu mu nekk di dund mooy naka luwaa yoo xam ne tubaab yi tëralal nañ ko ci jamono yoo xam ne ñu ngi jiite woon dëkk yooyu ba tey am na ci luwaa yooyu yoo xam ne nag mu ngi bokk ci seen luwaa wu réew mi si jamono ji nag ñu ngi waxtaanee sart yoo xam ne nag yooyu la ñoo mën a tëral pour gis nag seppi nañ ko ci luwaa wu réew mi gis ne nag mbirub démocratie bi dina mën a yokk ci réew mi commissionnaire général ci banxas bi seetu wàllu fayub lemp bi muy wuyoo ci ba Daabo ci waxtaan bu mu am ak ñun xamal nañu ne koppar goo xam ne naka nguuru Gambie bi sas nañ ko ko pour mu tëral ko naka ci atub 2021 bi bu soobee yàlla mu ngi ci lëkkaloo ak kilifa yu nekk di liggéey si jawrin googu te am na yaakaar ne naka ci liggéey bu ñu nekk di def nañ mën a tëral koppar gu yem noonu kàddu gi nag mu ngi ko gaaral ci waxtaan goo xam ne nag am na ko QTV ginnaaw nag ba nga xamee ne ñoom nag seenu banxaas bi doon na banxaas goo xam ne nag ñoom ñooy saytu lu aji ci wàllu lemp bi di ko jël tamit di ko bind nag war a jël koppar googu yóbbu ko ci néegu député bi pour gis ne nag nguur gi jot nañ ci koppar googu banxaas bu ñu dénk nag wàllub kopparu réew mi ñoom nag si jamono ji ñu ne si atub 2021 am nañu yaakaar ne nag lim goo xam ne nguur gi bindal nañ leen ko pour ñu yóbbu limu koppar gu am noonu dinañ ko jot nag balaa njeexantalu at mi te lii nag ñu ngi si fas yéene lëkkaloo ak nguurub Gambie bi ak banxaasu World Bank bi ak itamit seenu banxaasu ndimbal gu ci mel ni International Monetary Fund ñu taxaw nag pour gis ne teget boo xam ne nag nguurub Gambie bi jox nañ leen ko atuk ren ji nag ñu am ko lii nag ñu ne dafa bokk ci liggéey goo xam ne nag ñu ngi ko def tamit mbir la boo xam ne nag ab yokkute la Yankuba Dabo moom mi doon commission général ci banxaasub GRA bi ginnaaw doon gaaral kàddoom mu ne am na yaakaar ne naka kilifa yu nekk di liggéey si banxaasub GRA bi dinañ war a dajale li ëpp naka si fukk ak ñaari billion ci xaalis dara si pour gis ne naka teg nañ ko ci loxo nguur gi mu ne lii naka matuwaay la boo xam ne naka ñoom ñu ngi ko jël ak naka àndale ko ak sata yoo xam ne naka ñu ngi ko tëral ci seen wàllub liggéey bi pour gis ne naka jot nañ xaalis ku yem noonu mu continué di wax tamit yokkute la ci wàllub koom-koom ni Kenya sa foofu nag ci téeméer bi lu toll si juróom-ñaari fukk la banxaas bi seetu wàllu lempo bi di dugal nag ci kopparu réew mi mu ne nag si Gambie bi fii mën nañoo def noonu ndax nag Gambie dëkk la boo xam ne nag dañu wéeru ci koppar goo xam ne nag moo bàyyeekoo ci wàllu lempo gi. ba tey ci kàddoo mu ne mu ngi jaajëfal banxaasu ECOWAS bi ak mbootaay yu ci bokk ci matuwaay goo xam ne naka jël nañ ko pour tëral satta bu ñu tuddee si waa taf pour gis ne naka dooleel nañ réewu Gambie bi matuwaay gi tamit mu ne naka mu ngi jaajëfal njiit gu ees goo xam ne naka tànn nañ ko pour mu jiite naka mbootaay googu. banxaas bi saytu wàll fayub lempo gi doon na banxaas boo xam ne nag ñu ngi ko tëraloon ci néegub député bi si atub 2004 te nag ñoom seenub liggéey nag mooy ñuy jël fayub lempo bi ci place yoo xam ne nag foofu lañ koy fayee tamit nag ñu dajale ko yóbbu ko nag ci loxob nguurub Gambie bi te se loolu nag nañ ko jaarale ci néegu député bi buñ ko dëggalee ñu teg ko nag ci loxob nguur gi ñetti fanum ndaje la kilifa yi nekk di am pour waxtaanee nag mbir yoo xam ne ñu ngi koo liggéeyee jëmale ko nag si wéccitib kaaraange gu ñu nekk di def ci biir réewub Gambia bi ci àllarba bi nag kilifa yi dajaloo nañ pour gis naka wecci wante nañ xalaat tamit tëral satt yoo xam ne naka daf leen di jàppale ci seen wàllub liggéey bi ñu àndale ko ak nguurub Gambie bi ci matuwaay goo xam ne naka jël nañ ko pour gis naka defaraat nañ lu aju ci wàllub kaaraange bi gis na tëral nañ satt ak liggéey projet wala programme yoo xam ne naka dafay isi yokkute ci wàllub kaaraange bi matuwaay bi ñu jël ko si jamono ji nag ñu ngi koo liggéeyee pour gis na rataxal nañ lu aju naka ci wàllu politique bi dooleel tamit lu aju ci wàllub dëkkuwaay ak tamit yokkute doomi aadama yi Mamadou Badji moom mu doon naka national security adviser ginnaaw daan gaaral doom wax na naka matuwaay yoo xam ne ñu ko fasine jël pour am ab yokkute ci seen wàllub liggéey bi mu wax naka yenn jafe-jafe yoo xam ne ñu ngi koo jànkuwante ci wàllub liggéey bi ak itamit mu wax sarta yoo xam ne naka yoo lañ fasine tëral pour gise naka am nañ yokkute ci seen wàllub liggéey bi Christopher moom mu doon acting head ci banxaasu EU's defense bi ginnaaw doon gaaral kàddoom mu ne ci jamono ji naka ëmpale wuñ ne kaaraange dafa doon mbir boo xam ne mbir bu am solo la te ñoom naka pare nañ pour lëkkaloo ak ñu nekk ci biir réew mi pour gise naka tëral nañ satt yi ñoo jëfandikoo pour gise naka indi nañ ab wéccite ci wàllu kaaraange bi gis ne dëkk bi naka seenu kaaraange dëgër na ba nga xam ne naka ñaawteef ak ñu njaaj yi wàññeeku nañ ci biir réew mi mu ne am na yaakaar ne naka ndimbal goo xam ne ñu ngi koo def naka réewu Gambia dina leen jàppale naka ci sat farata ak jumtuwaay yu ñu mën a jëfandikoo ci wàllu wéccite kaaraange bi Moustapha Salif Yabo moom mu doon permanent secretary si office of the president ak Daniel Carlos ginnaaw bi ñu doon gàllal seen kàddu ñoom nag wax nañ lu aju nag ci mbirum ndaje gi ñu rafetlu nag matuwaay goo xam ne kilifa yi jël nañ ko jëmale ko nag si wàllum ndaje bi. banxaas bu war a saytu lu aju nag ci wàllub defaraatub kaarange bi ñu ngi ko taxawal nag si atub 2017 booba ba tey nag ñu ngi lëkkaloo ak seenub àndandoo yi pour gis ne nag am nañ dimbal yi war a nag ci yeneen banxaas yi pour gis ne nag defaraat nañ wala sax mottali yéene goo xam ne nag am nañ ko lii nag ñu ngi ciy lëkkaloo ak kilifa yi te nag ñu ngi jël matuwaay pour gis ne nag rataxal nañ diggante bi rataxal tamit seenub diggante ak banxaasu bitim réew yi ak i tamit mbootaay yoo xam ne nag ñoo ci jàpp si jamono ji ñu toll nag nguurub Gambie bi ñu ngi di ne dinañ isi ab wéccite ci wàllub kaarange bi pour gis na naka taxawu nañ askan wi lu aju ci seen yelleef ak itamit seen mbirub kaarange gis na naka kenn ku ci nekk jox nañ la sa yelleef comme ni ko luwaa bi tëralee tamit naka dinañ tëral ay sat yoo xam ne naka yooyu la banxaasub kaarange bi di mun a jëfandikoo pour gis na kenn ku ci nekk jox nañ la sa yelleef ak itamit nguur gi naka mun a doxalee mbir yoo xam ne naka mu ngi ànd ak luwaa ci réewum Gambie bi nag bu ñu bàyyee xel lu aju ci xeetu dund bi xorom nag doon na lekk goo xam ne nag dañ koy faral di jëfandikoo lu bari ci suñu dund te nag mbir la boo xam ne daf di isi ab yokkute bu ñëwee nag ci dundinu doomi aadama loolu tax na nag suñu ndaw bi génn pour waxtaan ak jaaykatu xorom yi xool nag xorom yi ñoo jaay ci biir réew mi yokkute gu moo mën a isi si wér gu yaramu askan wi. bu ñu sukkandikoo ci gestu yi pour gis ne xorom si am na iodine ñu ngi koy isis ci biir réew mi wala sax gestu gi ñun jot nañ ci si atum 1924 ba ko nag waa Suède si ak waa US defee nag ab gestu ñu gis ne nag mbir la bu am solo ndax nag dina jàppale askan wi pour nag mu wàññi leen lu aju nag si jafe-jafe yoo xam ne wala sax feebar yu sew yoo xam ne nag ñu ngi ko war am bayeekoo nag ci xorom si ci matuwaay boobu nag Gambie doon nag taranga googu pour gis fas di am nag iodine pour jàppale nag nit ñu koy jëfandikoo ci biir réewu Gambie bi nag ëmpale wuñ ne xorom nag mun nga koo amee fu nekk te nag ñu ngi koo jaayee fu nekk surtout ma nag ci marché yi Mama Bajinka moom mu doon jaaykatub xorom Sedentim Bridge doone naka vice président ci mbootaay bu ñu naan Sara Salt Association moom doon gaaral kàddoom naka wax na din bu nekk naka ci xorom suñoo jaay mu ne naka seenu xorom si mu ngi bayeekoo naka sa Sénégal te naka ñoom ñu ngi ci amee lu bari jëmale ko naka si wàllu njula bi mu ne boo demee naka si marché bi ñu bari ñu ngi faa jaay xorom waaye naka ñu koo jaay ay néew di doole leen ndax naka dañ ci de am lu bari mu ne naka boo jaayee ba ngoot jot yenn say naka doo am sax looy dundalee sa njaboot njaboot mu ne business bi naka dafa xalaal waaye naka koppar goo xam ne naka moom lañ si nekk di am dafa néew torop Malick saar moom it mu doon ab jaaykatub xorom sa Denton Bridge ginnaaw doon gaaral kàddoom wax na naka ci xorom soo xam ne moo di bayeekoo ci géejub Gambia bi mu ne naka xorom mu ngi fees tepp ci géejub Gambia bi te mu naka xorom la goo xam ne am na ayo ayodine waaye naka amuñ machine yoo xam ne naka yooyu la ñoo mën a jëfandikoo pour génne ko naka si géej gi mu ne waaye naka xorom yi bayeekoo ci yeneen réew di dugg ci biir réew mi mun nañ koo jëfandikoo ndax xorom si baax la National Nutrition Agency mi banqaas yoo xam ne nag ñoo nekk di bàyyi xel lu aju ci baaxaayub lekk gi ñoom nag ñu ngi bàyyi xel xorom si pour gis ne nag ndax mun nañ ko jëfandikoo te fekk amut ayodine ak itamit xorom yi bàyyi ko ci yeneen réew di dugg ci biir réew mi dañ ko de gëstu nag pour gis ne ndax am na din ab ndiir matuwaay bi yëpp nag kilifa yi ñu ngi ko jël pour gis ne rek nit ñi jëfandikoo nañ dund gu baax bu ñëwee nag ci dund ñu dee lekk ci bés bi te nag ñu ngi see jaajëfal kilifa yi ci matuwaay koogu mu continué di wax ne ñoom nag seen xorom si nuñ koy defaree dafay jàppale askan wi lu aju nag ci wàllu dundam ak itamit ci mbiru wérgu yaramam mu ne nag seen xorom si dina la jàppale nag pour wàññi yenn feebar yi sew yoo xam ne nag yaa ngi koy jëfandikoo mu continué di wax ne tamit am ndimbal yu bari yoo xam ne nag mën nga ko ci jëlee war a bàyyeekoo nag si sa wàllu wérgu yaram mu ne booy lekk naka xorom su bare danga gis ne nag dangay am high blood te loolu naka mun naa tax sa xol gi jékki-jékki rek bañ nga am naka heart attack wala naka sa xol bi am problème te tamit mun ngaa am feebar bu ñu naa stroke ak i tamit yeneen feebar yoo xam ne naka mun na laa sonal ci sa wàllu wér gu yaram. Mama Bajinka moom mu delluwaat si di wax ne naka xorom su am ayodine gi duñ ko dee defaree ci biir réewu bi ndax naka ñoom mënuñ ko defar surtout bu ñu duggee ci nawet bi dañ dee am jafe gu bari jëmale ko ci seen wàllub liggéey bi mu ne mu ngee ñaax askan bi naka pour ñu dimbale leen ñoom jaaykatub xorom yi mu ne mu ngee ñaax naka banxaasub ndimbali nit yi benn bopp yi ak mbootaay réew ñi naka ñu jàppale leen si salt factory muy factory boo xam ne naka dafay defal xorom bu boobaa naka ñoom dañ mën a jël xorom soosu jaxase ko naka ak ayodine bi ngir gis ne Gambia tamit seen xaram si am na ayo di jàppale askan bu fee yewoo lu aju naka ci seen wàllub dund gi mu ne bu fekkee ne naka loolu am na ñoom naka dinañ bàyyi di jëlee xorom sa bitim rew di ko isi si biir réew mi te su boobaa naka bu ñu demee bay defar xorom si si biir réew mi ñoom seenum njula gi naka nañ si mën a am dara si jamono ji ñu toll naka xorom am na naka solo bu ñëwee naka ci nu askan wi waaye naka si jamono ji ñu toll ñu bari ñoo xam ne naka ñu ngi ci biir réew mi duñ dee bàyyi xel naka ndax xorom gu ñoo jëfandikoo am na ayodine apandite waaye naka xorom soosu dañ koy jëfandikoo bu ñëwee ci maalo yi ñoo togg jën yi ak yàpp yoo xam ne tamit ñu ngi koo togg te naka ci biir réewu Gambie bi ñu bari duñ dee bàyyi xel naka façon xorom ñoo jëfandikoo waaye naka ginnaaw loolu jaaykat yoo xam ne naka ñoom ñu ngi jaay xorom ci biir réewu Gambie bi ñu ngi bàyyi naka pour gis ne xorom yi ñoo jaay ci biir réew mi askan wi naka dañ ko jëfandikoo mu indil leen naka ab yokkute ci seen wàllu wérgu yaram mbokk yi xibaar yi lañ leen fi amaloon ci bëccëgub tey bi yaata lii ngeen dis doon ànd ak Xadijatu Koli di leen jaajëfal ci ànd bi di ñaan yàlla mu mel ñu ñeendoo jàmm jërë ngeen jëf ci topp bi wasalaam